ba koy appliquer ba muy egg benn niveau bi parce que lu bu boobaa mooy nit yi nekkatuñu ay nit. njàpp billahi wallahi taala maa la wax ne la réew Sénégal réew baatin la. Mm-hmm. am na loo xam ne du fi prospérer. ku ko jéem nañu yàlla may fekk tal toogal nga setaan. le journal express sortie bi nga xam ne le président Macky Sall accordé na ko surtout par rapport ak troisième mandat bi ba tey selon le président Macky Sall dafa mel ni non ni oui bi euh, fu mu toll nii.

may ma ko rek parce que Sénégal nag ñun bu fekkee dañoo jàppeewul ay nit amuñu benn respect si ñun ñun ñu respecté suñu bopp ñu dañoo respecté suñu bopp dégg nga wax bi. Mm. yaa wax express du express nga wax. Mm. wala. waaw. man boo waxee express dafa leneen loo xam dama la kaa wax. muy ban paas

mu jox ko beneen mandat cinq ans est-ce que du jéem a laaj troisième mandat foofu il faut ngeen ne ci ay leeral mu leer ci bopp sénégalais yi. non dafa leer naññ président wax na ko waxati ko te ni ñu ko bindee sax ci constitution bi leeral na ko mandat bii nga xam ne ci la ne muy mandat wu sept te mu bëggoon ko wàññi moom ci boppam conseil constitutionnel ne ko loolu mënta nekk bu xasee ba jeex muy deux mille dix neuf ba ca topp cinq ans lay doon bu ko yàlla falaatee incha allah am nañ ci yaakaar ca lay deux mille vingt quatre ci boppu Sénégal kooku moom constitution bi leer na ci naan. loolu loolu kon ça veut dire que ñaari mandat dong lay def. mandat bii mooy bii bii tàmbali bii mooy benn ba ca topp mooy ñaar mu dal di jeex. dix ans maanaam nit mënatul toog. Amina Fee Omar Youm may ma ko rek may ma ko rek waaw may ma ko rek dinaa la du temps de may ma ko rek réew mee soxla lii may ma ko rek. mandat au président Macky Sall bu 7 ans bi. bu bokk na que Macky Sall amul droit. lu mandat droit. respecter la constitution bi constitution bi dafa nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Euh, mandat c'est le premier mandat de Macky Sall il n'a droit qu'un autre mandat nul nul def ñaari mandat yu tegale lu ëpp ñaari mandat yu tegale xam nga durée ak mandat du benn objectif de dur mandat bi moo naan. maître Ousmane Seye yàlla na ko yàlla yërëm benn président de la République bu ñu falati fi defati plus de dix ans euh, parler par rapport à ce mandat mais mais à part Aminata Touré ñoom ñëpp gis nañu aussi euh, Aminata bi yor wàllum Oumar président Macky Sall <laughs> waa njàpp est-ce que yow journaliste yow war ngaa toog jàkkaarloog man naan express Nena, na xam nga réew mi lan la war a war a wax fu nekk déglu baax li lay wax. moi je suis révolté. moom la. ma sama baay bi di wax Papa ma ma ma Sénégal ngay un ministre de la République Ismaël Fall wax dans un sens moral amut solo plus ou moins. Mhm. le droit. C'est question d'interprétation, c'est une catastrophe. C'est immonde, c'est mesquin, c'est dégueulasse, c'est lâche. Mhm. C'est-à-dire, c'est inhumain ce qu'on est en train de nous faire vivre au Sénégal. On sème la terreur, la zizanie, sur du faux. C'est de rats de pacarette. Manam, li ma te chaque jour te nit ñi moy wa léegi kaddu yi kaddu Umar Yum yi waxuma Aminata Touré parce que tu ci motax tax ngeen genn ko ci kaddu Umar Yum kaddu met Ousmane sey yalla na yalla yeureum mhm. kaddu president Macky Sall Ismaïla major Fall Seydou Gueye kaddu nitu APR yi doon wax yépp au temps du référendum ah kon dañ dal bëggoon ñu voter wi bi rek après ñu jall ñu xol nak ñuy def way yow man ñun lebuy yi tok toog toge ci borom geej fe dañ nan eh sarap li way <laughs> ndiap xulil ka saagawul fii saaga nga fee kaka deful nit ñi dégg nga def nga sa man mab xel fu ma toll maa ngee daggal mab xel mu ngee daggal xanaa du ma tee ndax xel ba daggal mab xel a ngee daggal fa mu toll xulil njàpp heure bu ma yeewoo ba jàpp ba julli mab xel a ngee daggal ci li ma dund ci réew mi le paquet de sucre coûte 1200 francs au Sénégal ça coûtait 200 francs 150 200 300 au temps de Diouf aujourd'hui avec le président Macky Sall, qui a été étudiant au temps de Diouf, qui a vécu la galère de fatigue à Dakar. C'est lui aujourd'hui apparemment qui nous fait subir ces, affres-là. Et aujourd'hui, def nga li nga ay non non non vous allez continuer à souffrir kakaar nangu yàlla na yow kenn fi troisième mandat Inch'Allah. Pas <laughs> Paa avec ce procès Mambé Ousmane Sonko pour diffamation. Euh, finalement le 30 euh, mars bi y euh, a jàpp gis nga maître Clédor la bataille tey France di faju pare que am avocat boo xam français espagnol la aussi ci pool d'avocats yi nga xam ñoo war a Ousmane Sonko par rapport à ce procès. c'est inquiétude par rapport à ce procès et l'avenir politique d'Ousmane Sonko aussi est-ce qu'il n'est pas en train de jouer sa dernière carte qui joue sa dernière carte. Ousmane Sonko yow ki qui a bokk bokk kay ne ci dernière carte yaa <laughs> ki warut président Macky Sall moo nekk ci dernière carte. ah mais Ousmane Sonko mi nga xam ne bu ñu. carte par rapport à quoi. Euh, euh, ndax dina bokk wala du bokk Ousmane euh, voilà. par rapport à ce procès en diffamation. waaw je vais te répondre simplement Diab. allez-y passe. il y a quelqu'un qui s'appelle Brahim Seck. Mhm. qui a fait un livre. Mhm. bërki dem nag ñu ma wax ne ma livre boobu sax gars yi jëlee nañ ko ci réew yi. man kaa ah. dégg leeru ma. Biraim, Biraim, vous avez engagement seetaan livre bi tas ko internet bi nous lire que, ñi ko liirul que, ka mhm. wala am tas ka tu penses qu'on peut continuer comme ça li, du dëgg du yoon Seck lettre au peuple un festin de 36 milliards de francs CFA au Prodac mhm. Mame Mbaye Niang du porter plainte Birahim c'est Seck alors <laughs> madame, madame, madame, <laughs> tey jii il dit cela il est tranquille la dernière fois on me dit que dafa ñëw au tribunal bu di duggu ñu ne ko non do duggu parce que ci biir fess na te yow bi Birahim Seck juge waron naka soxla xana ne ko sëñ bi yow li nga bind lii quel est le rapport ak li ñu ma wax information est avérée y a quelle information y a beaucoup de manipulation quelle information Birahim Seck dañ ko interdire non dama ne ah. dañ ma ne ñëw na ci tribunal ba ñu ne ko ci biir dafa fess loolu wax est-ce que waaw non du question avérée xam tay c'est comme malheureusement quand j'entends des gens dire way dambot limi wax euh, est-ce que deug la dafa am dafa am yo xamni man suma koy dégg ci Sénégal damay tiit dama naan mais il hmm. y a un problème ce qui se passe avec Dambo, c'est quoi On est prompt, rapide, mais gao à solutionner des choses quand ça concerne les opposants pour les éliminer. Mais quand c'est pour les protéger, non, on fait le mort, on fait comme si de rien n'était. C'est comme ça qu'un pays normal fonctionne. Mm-hmm. Mais si maintenant le pays va dans le sens de... Parce que taille Sénégal, il faut une jungle. Nous avons un nous avons un des gens def fi faux billets di doxantu ci de bi des gens def ay passeport diplomatique fout un bordel terrible sur la diplomatie sénégalaise di doxantu ci de bi non ñuy japp ay nit à gauche à droite ba paré né sénégalais nopi noppi billahi wallahi tallahi li du wéy inshallah allah te léegi mu jeex ci kàttanu yàlla. mais personne. <laughs> le 30 c'est simple inshallah <laughs> les deux l'avocat n'est pas là ñom waa yoon ñoo xam nu ñuy doxalé définitivement il va falloir faire quoi attey le 30 inshallah. allah waaw bu ngeen ñewé wa ay avocat am fa nak wala disponible nu ñuy def ñu ne ah bon ça a été repoussé deux fois la troisième il va falloir décider lan ngeen di décider rapport am na ak amul Mamba Mbaye Niang amna. na Amadou Ba nee amna. Ki lan la wax ngeen bëgg ko kal ci su IGE ak IGF inspection générale d'État, inspection générale des finances hmm. soxna si réew kenn du ko fowé deuk ak askan des millions de sénégalais qui du il y a un ben fanfaronnade de finisterie qui n'a pas son nom malheureusement ni sa définition qui nous dit oui force reste à la loi justice nangam dangam te yow mais wax force reste à la loi ak justice yow newoo ci loi la sortie de Tcherno par rapport à cet appel de la mobilisation à chaque fois euh, Ousmane Sonko ak dañ koy les jeunes euh, comme comme lui-même il appelait à manifester. j'aime bien Tcherno mais Tcherno dama femmes, ni femmes, de calcul femmes, am femmes, am femmes, am femmes, femmes, des femmes femmes, nit. il femmes, à manifester. mais femmes, aussi sur le terrain. Euh, mais sur le terrain sos jamono bii qui kuy opposé wu mënoo teg fii teg kuy opposé wu da opposé hmm. Sénégal toll aujourd'hui parler dans le sens qui fait l'affaire du pouvoir parce que pouvoir bi aussi si le discours aujourd'hui ce n'est pas de dire à tel opposant non non non il y a un problème il y a wax doo opposant Deug bi xam nga mo la lan Sénégal fan la toll. Hmm. fan lañ ko fan nous def son démocratie fan la def fan la def limitation de mandat buñu démé ba 2023 suñu ay autorité yu fi nékkon doon wax non président bi amatul droit ñoy togaat di wax quand j'entends parler Ismaël Madior Fall qui dit non ce n'est plus une question de droit c'est une question politique ñen nit ñi du ñu yow nit ñi di daggal ba suba nit ñi fatt sonn les gens mangent mal vivent mal allez à Bambay, allez dans les régions du pays quand on nous dit que Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf danaka le président Macky Sall aurait fait plus de kilomètres que wa def nga plus de kilomètres. ouais mhm. ça waay bu waa ji dëkkee ginnaaw fa yàlla xam amul passe bu ko jàllale ci infrastructure boobu nga defar ban njëriñ la ko amal au delà ces infrastructures yi nga xam ne tubaab bi xam lu ñuy wax. Mhm. j'ai parlé à un député européen une fois il y a deux ans je pense qui me dit bon chez vous là vous savez les infrastructures c'est quoi c'est source d'enrichissement d'enrichissement. Les gars, quand ils veulent avoir de l'argent, ils, créent des ponts, des autoponts, ils... tout va moins mhm. Et à voir ce qui se passe, en termes de questions de priorité, on a l'impression que dañuy priorités priorité folle. nekk ci bi 784 milliards 57 km, soi-disant nether, terre maintenant les gens vont quitter ici en 5 minutes tu es à Diamniadio. Mhm. en 5 minutes je suis à Diamniadio en 30 minutes moi, à péage À 20 minutes je suis à Diamniadio où est la différence non TER bee gën a gaaw taf taf nga yegg mais taf taf ma yegg jam ñaajo ak oto parce que autoroute APS maa ngi fay léegi nga leen di enrichir ñoom di leen fay ci teer di leen fay ci ci ci BRT di leen fay ci autoroute APH VDN bi maa ngi dégg ñu naan wéy dañuy xalaat def ko eh, autoroute APH mais ñii dañoo yëpp sénégalais yi c'est-à-dire dafa am benn manque de respect et de tenue malheureusement boo yoree nguur foog ni yaa moom dëkk bi sa bis a ngi ñëw wallahi azim sa bis a ñëw parce que yàlla am na fu peuple di toll su peuple sonnee sës mënatul def dara yàlla mooy ñëw merci Pape te Yalla buy ñew do ko Hmm. Yalla ñu Yalla le ci Yalla pes. allahumma a Yalla ci Yalla président Sall ak ñi mu andal ñun seen ay am di jamm lañu seen jamm lañu bëgg tous les dictateurs. Mhm. ont sombré Sese Seko Bir buy daw la ñaké bakanam. il bay daw 24 heures sur 24 ba mu joggé fi. keneen noonu El Hadj Bongo tëdd na ba son doora dem keneen noonu keneen noonu keneen noonu Habib Bourguiba yalla ko yalla dimbali Ben Ali nan la def dawe Tunisie ci benn xale kat marchand ambulant. Mhm. Mohamed Bouazizi. Mhm. bu heure bu ñewé lal waji sonal ko alkaati bi. Mhm. jógeel fii dégagé sànni ko dor ko ba mu sonné ci fin de semaine ba xam la mu def sorti bopom pétrole tal. police baax ñëpp ti dëkk ba génn Ben Ali daw. Arabie Saoudite la ñaké bakanam comme un vulgaire rien du tout voilà quand on parle à nos autorités ne xel suñu borom mbir mi du amna di ngandé mbir xel la dafa bind président Macky Sall dafa bind bi ngay qui bind bi nga joggé yalla na rafet kenn du kenn lu bon mais amna na de boko ne askan askan Vous sont jàppee la ñaanal lu bon ñu du ñaanal kenn lu bon ka fi Sénégal la wax na fi te bu la fi yàlla jëlee du la ñaanal lu bon de yàlla na la fi yàlla jëlee nga ne si jàmm yow. mais ñun ñu am jàmm ñun. yàlla def jàmm si dëkk bi. amiin Pa Assane ça a allah bu ma fayee xaalis <laughs> réew mi dafa metti merci d'être venu. merci aux internautes qui nga xamné ñoo top suivre euh, programme euh, c'était tout pour aujourd'hui c'est l'émission euh, « les 52 minutes de Niap on se donne rendez-vous demain inchallah Bienvenue invité un sujet à débattre d'ici là prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes merci